man la Mariama Diallo secrétaire générale de l'UDTS Union démocratique des travailleurs du Sénégal syndicaliste la jiite central syndicat et je suis la seule femme koo xam ne moo ko jiite au niveau du Sénégal léegi nag euh, dañoo am benn projet boo xam ne dañoo lëkkaloo ak benn partenaire suisse moo ñu jàppale ci benn projet sur les violences faites aux femmes et aux filles en milieu du travail et en milieu euh, en milieu de l'école léegi si loolu euh, dañoo waroon a def ay enquêtes def état des lieux si région yi euh, lii deuxième année bi lañ nekk extension lañ nekk defoon nañu cinq régions du Sénégal léegi nag dañoo wax ne man nag waa Fatick la si Fatick laa bokk il faut man itam ma ñëw jàppale waa Fatick naka laa leen di jàppale ñëw euh, defal leen ay formation defal leen sensibilisation sur les violences faites aux femmes en milieu de travail en milieu scolaire si loolu aussi euh, loolu moo tax ñu ñëw fi tey euh, di former ay euh, jigéen ñoo xam ne ñoo nekk ci informel ak secteur informel ak secteur formel ñi fa nekk yépp nag 37 personnes yooyu am na ay élèves am na ñoo xam ne duñu ay élèves loolu lu tax ñu jël ko aussi élèves yi en milieu scolaire dañuy dem sensibiliser seen morom yi ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk secteur informel ñooñu aussi dañuy sensibiliser ci seen secteur mooy marché yeeg yeneen ak yeneen ñi nga xam ne ñoo nekk secteur santé ak yeneen ak yeneen ñoom aussi suñu demee ci secteur aussi ñoom dañuy sensibiliser loolu moo tax tey ñu xëy fii wax ne daal il faut ñu jàppale jigéen ñi jàppale jigéen man jigéen la kon nag jàppale jigéen mooy jàppale sama bopp mooy jàppale réew mi aussi te euh, état mënul def lépp lii mooy syndicat de développement syndicat nekkul revendication kese nekkul xeex kese nekkul grève kese syndicat da ngay def ay jéego jéego yooyu si yooyu lañ nekk